he hadde bere maria ko here jabde bini ha merci sa maam ngi yaay ma sama man sama mam tamit moy sama xarit Malam malam malam ci tayama la de barke man la guri may sa jor lab yaay Abdou Karim merci ma ci lab ak guri may sa jor waaw ci ay na ay jamono la def de bula waaw waaw. Palma Sarr boolu bool. naa la mi ngi noonu nag fay day sumeeku na. ndeysaan waaw waaw màggal gaa ngi borom talaata yi dee borom talaata yi gaa ngi laaj dama bëgg ñu ñëw rek nit ñaa ngi toog bàjjal nee naa la mi ngi noonu dooga ñëw toog la mi ngi noonu Pikine am nañ Auchan Pikine am nañ Bira Sore Pikine am nañ stade Alassane Djigo Pikine am nañ terre Pikine am nañ arène nationale Pikine am nañ champion d'Afrique indo moo nu manqué woon indo Pikine am nañu Endo Endo Pikine waaw mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu champion d'Afrique baa ngi noonu Endo baa ngi nii nee naa la ñun Pikine namuñu dara am nañ am nañ Auchan am nañ TER am nañ Biras Doré am nañ stade bu bees am nañ arène nationale Endo moo ñu manqué woon mi ngi nii dégg nga. miri biyaari xëy. ah soxna Thiam soxna Thiam a ngi noonu yegg si na. Oh. ah soxna Thiam. oh là là. c'est sourire